sa doom sa talib mu tax may man tuur sax sëriñ Tuubaa rek dara liggéey sëriñ Tuubaa rek dara liggéey na ko sëriñ Tuubaa rek dara Serigne Touba nag kenn dara liggéeyam def nga xale. waaw mais El Hadj Sarr. mais suñu seqsay ma ko bu yeggee nga tàmbaliwaat yeneen. kee la maire doo ci Touba doo sonn. kee la maire. kee la maire kee la maire. kee la maire président Touba rek kenn dara liggéeyam. tàllal leen loxo yi mu ñaanal ko. Serigne Touba rek nga dara liggéeyal amin amin Mbakke amin Mbakke amin Mbakke amin Mbakke waaw dañuy dem si plaque bi waaw amin Mbakke lu waay bëgg ñëwal Serigne Touba amin Mbakke Serigne bi rek nga dara liggéeyal amin Mbakke saya waaw waaw pour muuri kii waaw